divorce bu nga xamante ne ni euh, mu ngay bëgg a juddu seenu euh, diggante lu jëm nag ci li nga xam ne nii moom moo di ay kàddu ñoom député yëkkati na euh, xam ne lan la ñu xalaat ci ñaari liggéey yooyu leen fermeture frontière ak diggante gi nekk Sénégal CEDEAO nag jamono ji mu ngi ci amal ab médiation di waxtaan ngir rek xool nees def ba mën a suturaal ñaari réew yooyu lee diffamation bi ñu gàll ci rek ndoor di njiital UMS Madiambal nag fas yéene na taxaw wala sax euh, kàddu yi nga xam ne nii jàppe nañ koy diffamation ci ndoor du UMS Madiambal Diagne taw fas taxaw ci kanamu baar bi ni ko juróom-benn fan ci weeru mai euh, gi nu euh, dëgmal lu jëm nag ci fitna bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar yi ñu nemmeeku ay daan gàll na ci ndodd yi yenn ci étudiant loolee nag la Walf Quotidien bu tey bii daal di xëy fësal Sud Quotidien nag wax ci dàq gi ñu dàq élection locale yi assemblée nag euh, fi mu doon yéy na ca yàbbi élection yi nag dañu ko noonu amal ni ki fanwe ñu ngi ko fas yéene amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru janvier at 2022 loolee Sud Quotidien daal di koy xëfësal enquête yi yéenekaay yi ne lu jëm nag ci euh, fitna gi ñu yaakaaroon ne mën na am xëy na ci dàq gi ñu bëgg a dàq élection locale yi Macky Sall nag mujj naa euh, xaajale mbir mi ñaar ndax bu nekkee majorité bi dañoo bëggoon février 2022 opposition bi bëgg décembre 2021 Macky Sall moom def na ko 31 janvier 2022 Moustapha Guirassy nag daal di xam ne ne ab vide juridique la ñu nemmeeku rek ci mandat yu élus locaux yi ci assemblée nationale nag Cheikh Tidiane Ndiaye remplacé na Issa Sall Vox Populi nag moom xëy fësal euh, noppi gi ñu nemmeeku ci. projet de loi numéro cinq mille 5 2021 local yi dàqaat nañu ko ba euh, mille vingt deux euh, jamono ji ñu jàpp ne ab procédure bu euh, yaatoo yaatu moom mooy xeeñ diggante assemblée nationale ba ci askan wi. mandat nag le mandat li mu xëy fësal mooy dàq gi ñu dàq local yi mu jàpp ne nag ab. viol bu ñu validé par par majorité bi loolee nag le le mandat yéen kaay daal di xëy fësal les échos nag moom xëy fësal nag examen projet de loi bi nga xam ne ngànk nañu ko ci report euh, local yeeg report élection territoriale yi. état bu Sénégal jot naa bàyyi as ndëkk eh, ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di député yi jot nañoo àddu ci mbiru Sonko ak Adji Sarr daanaka débat yi fësal nañu ko ci bu eh, baax a baax faatu Fatou Diouf Cheikh eh, Seck Mariama Ndiaye ak Djibril War yàq nañ lu mel ne xamee liital Euh, Pastef di Ousmane euh, Sonko gouvernement bu Sénégal nag jot naa proposé datub fanweeri fan ak benn ci weerub janvier euh, comme ni ñu ko sàkkoy woon ñenn ñi lu des nag ci 24 heures yéene kaay yi xëy na fësal nag meeting ba am ca kaw Malick Gueye liggéey di yàq lu mel ni xeme raxma ak ay ñooñam ne meeting boobu warul woon a am te day jàpp ne sax ay partisans wu jegeñaale njiitu réew Macky Sall daanaka jamono ji doxuñu ci rythme bu euh, yees discours à la nation bi ñuy xaar ci njiitu réew Macky Sall le grand oral loolu la ko critiqué ne kaay xëy fësal ne enjeu politique yi bëri na ci jamono ji nga xam ne dëkk bi tàngoon na jër ci fitna yi ñu génn le quotidien yéeni kaay nag dem ba def ci ab jeu de mots ne suite d'un message discours à la nation lépp rek lu ñuy sàkk mooy dal loolu le quotidien yéeni kaay daal di xëy fësal l'observateur nag moom xëy fësal entretien bi nga xamante ni nii jagleel nañu ko bâtonnier bi yëkkati ay kàddoom fësal ko ci xëccile maître Pape Leyti Ndiaye ci mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr yi nga xam ne seen ay avocat joxante nañ ko seenu biir ak yenn ci ay menaces di xupp yooyu yëpp jot na ko fësal muy daal di àdduna sax lii bu mu amati lu jëm ci wàllu Casamance ay avion espion lañu nemmeeku ci base militaire yi ak ay prise de vue appareil immatriculé bu Maroc ak ñeenti membre équipage yi jot a teg loxo. lu jëm nag ci laas yéeni gars yi nag dafa àddu rek ci jafe-jafe gi nga xam ne ni secteur napp gi ñu ngi koy jànkuwanteel Alioune Ndoye jamono ji mu ngi jàkkaarloog gay bees ak gaps ngir rek xool yeneen ci mesures yi nga xam ne jotoon nañu ko jël ngir xaatim kayitu déggoo yi jox ci seen protocole réunion bi ni ki démb nag secteur u pêche jamono ji cadre employé rek ak jeunes yi alinde jamono ji mu ngi ci euh, jafe-jafe waaye nag lu ci mën a am mooy ne ñi nga xam ne ñu nappkat ci leen rek la ñuy xool mooy ñu xoolaat accord de pêche loo jëm nag ci euh, libération ak explosion bu puits bu bu gaz yu nekkee ca diwaanu euh, Ngajaga ñu jàpp ne nag kenn lañ ca gis ne moo ca taxawee taxawaayu ñàmbaar di rek gënu ñoom bi ñu jàpp ne sax jamono ji lépp loo nga xamante ni mënoon nañ ko éviter euh, ci reeb ab fitna euh, jot nañu ko rek jot nañu ko fësal ci seenu ko ñàmbarteef ak lu ci mën a am rek ñu ngi fësal nataalam ci xët yilee lu jëm nag ci fànn bi nee nañu moom fekkante ne sax am na ay blessures Henri euh, Michael euh, Gunin euh, jot naa évacuer camion citerne bi nga xam ne moo amoon na gaz ba mu fees loole bu tàqoon mën na indi jëye ci fànn bi la jëye ji am ca Mozambique Dakar Times ci dikk ne cong ba nga xam ne am na fi nes def ba mën na comprendre situation gi am foofu foofulee di ab situation bu chaotique bu ñu ne sukkandikoo suñu naataangoo yi ci Dakar Times. weekend bi nag euh, dinañu nemmeeku ay euh, euh, match yu am solo ci tugal bi ci gën a fës nag nekk Paris Saint-Germain seen diggante ak Lille loolee nag journal bi di koy xëy fësal di stade yéeni kaay jeexale ko ko sunu lomb mi daal di xëy fësal nataalu Lac de Guiers 2 ak Eumeu saison 3 bi le 4 avril la Lac de Eumeu régalé nu loolee la journal bi xëy fasal mel ni ku leen di ñaax ngeen ñu amal match euh, foot euh, lamb ju neex dooree ko ci 16h45 ci digg seeg kile di Eumeu seen di h pile lañu jox rendez-vous euh, lakk 2 ak lu ci mën a am ñu ngi xaarandi ngir ñu am rek li nga xam ne moo di jàkkaarloo gu mucc ay mbokk yi li la woon ci xibaaru suba si ñamul yi ne yeggee leen ko yaakaar te yëg si na ci canam gi gën di sant gërëm bu baax a baax njàpp ci toogum xibaar yi daal di yemb jërë ngeen jëf mbokk yi ci topp gi ak teewlu gi Djibril Ndiir moo nekkoon ci xarale gi Safir Cissé ci réalisation bi soxna si jaxate moo nekkoon ci kàddu gi mbokk ñu di ñaanal bëccëgub jàmm sutura xéwal nattaange ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa ne waa mi naan général générale agsi nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër